حي على الفلاح يلا مبوك جليت ني دارا ملول ني موم موم يلا سبحانه وتعالى موي بورو جام ني موم كيب موي كينو ورا جامو تي كاو سوسي ادي سوكو بوكالي اك دارا مبوك يي نوغي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم جامو يلا دي ندوال بروم بي moom mooy ki yàlla tànn yónni ko ci nit ñi ngir mu xamal leen li leen di texelaw ëllëg yowmal qiyaam texe ak mucc ñeel na ñi nga xam ne ñoo ko déggal nangul ko jaar ci aw yoonam ba keroog bis penc mbokk julit ni noo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal sunu borom tabaraka wa taala di jafe ay ndigalam te bàyyi ay tereem borom bi tabaraka wa taala wax na ci alquran lu bari yéen way gëm yi na ngeen ragal seen borom yàlla waaye na ngeen jébbal seen bopp borom bi subhanahu wa taala bala ngeen di faatu ñi leen di jébbal yàlla bokk julit ni sunu borom tabaraka wa taala wax na ak nit ñi ci alquran tey ñu tànn ci ay aaya yoo xam ne sunu borom moo ngi ciy wax ak nit ñi moo ngi ciy wax ak doomi aadama yi moo ngi ciy wax ak julit jullit ñi alquran lettre la bu bàyyi ci borom bi jëm ci doomi aadama yi dee su ko lekk dee su ko naan dee su ko sangoo dee su ko takk waaye message bu ñuy déglu message bu ñuy jàng la ay digle ne ci ak ay santaane ay càkkuteef ne ak ay tere ay recommandation ne di xaar ñu dégg ko dal di koy dal koy jëfe waaye sunu jamono ji mbokk ji leen ñi jàngkatu alxuraan yëpp sopp nañ leen ay sëriñ tarixa jàngkati alxuraan yëpp fi mu ne boo jàngee alxuraan rek jàpp nañ ne da ngaa war di bind di rëdd di jox nit ñi ñuy xooj ak a sangoo ka jàmb ak a takk mbokk ji leen ñi alxuraan li ko taxoon a jóg dëgg dëgg donte mën naa am njëriñ bu ci nekk buy dellu ci doomu aadama ci wàllum faj la ci wàllum wéral la ci walu musal ak yu ni mel waye deug deug deug deug li tax ñëw alquran mbokk jullit ñi message la bo xamne des koy jàng des koy firi des koy dégg des koy comprendre des si référé wu pour mëna baxal li nga xamne moy sunu dund aduna waye baxal li nga xamne moy sunu dund sunu dund alakhirah tay ci message bobu mbokk jullit ñi lañu tànk lañu tibbu lañu sekk lenn ci ay verset fas ci def sunu taxawayu khutba bi inshallah aay yi ñu tànn mu ngi ci suratul maarij muy surat numéro 70 tàmbalee ci verset bii nga xam ne mooy verset numéro 19 ba ci verset numéro 35 suñu borom yàlla di développer ay valeur yoo xamante ne nii soo ko dégloo dégg ko jéem ko cultiver ci sa bopp wallahi boo faatoo daal di texe di nga am texe fii ci àdduna waaye di nga am texe fi nga xam ne mooy mooy àllaaxira sunu borom daal di wax ne innal insaana xuliqa halua mbokk yi borom bi nee na doomu aadama dañ koo bind ci goree di nee na doomu aadama mooy mbindeef bi gën a goree di subhaanallah loolu yàlla képp moo ko mën a wax yàlla képp moo ko mën a wax doomu aadama ndax yàlla moo xam doomu aadama buñ ko toppee ci mbir yu baree bare bari da nga yëg ne effectivement doomu aadama mii wax dëgg yàlla dese naa gore diggante moom ak boromam subhanahu wa taala mbokk julit ni boo jàngatee fi yàlla jaar ak doomu aadama ak xéewal yi bàyyi ko ci suñ boroom jëm ci doomu aadama ak doomu aadama taxawaayam diggante moom ak boromam effectivement danga naan yàlla wax na dëgg doomu aadama dese naa am gor dese naa gore dëgg dëgg dëgg diggante moom ak suñu borom mbokk julit ñi yàlla fan la jaarak ak ci tënk jëllale naa nekkal gim la nekkal amal gim la amal jëllale naa sa biiru waajur wu jigéen jëllale na jàppandal gim la defal ba nga gane àdduna jëllale naa sàmm gim lay sàmm aar gim lay aar ba nga doon ab xale bu góor mbaa xale bu jigéen jëllale na xéewal yim la defal nga man di dund ak yooyu waaye bu ñu delloo suñ jëmm yii suñ jëmm yii suñ borom ne wa fi anfusikum afala tubsiroon boo wéeteeg sa bopp rek jàkkaarloog seetu da ngay xam ne dëgg dëgg dëgg yàlla defal na la ay xéewal mbokk yi bët yii ngay xoolee foo ko jële soo ko boo ko yàlla xañoon kan moo la ko mën a remplacer leneen nopp yii ngay déggee foo ko jëlee ñaata ngay fay par weer pour mën di xool di gis ñaata ngay fay par weer pour mën di dégg ñaata ngay fay par weer pour mën di déplacer wu di dox di dem di ñëw ñaata ngay fay par wer ci ngelaw li nday noy muy oxygène bi nday noy nga xamné bés bo amone jafeñ-jafeñ ci walum wer wér-gu-yaram ngir noy ngelaw yàlla li subhanahu wa taala ba sa noyyi ci ngelaw aju ci kër docteur aju ci loxoy ay doomi adama ñu war la jaay seen oxygène yoyé alal ju bare bare bare ngay fay ñu bari bu len loolu dalee sax dañuy faatu ndax amuñu moyen pour mën dépenser def dépense yu mel noné borom bi dal di lay jàppandal lolé lépp defal la ko muy gratuitement tàllalal la suuf si tiimal la asamaan si génneel la naaj guddi mu génneel la weer defal la guddeeg bëccëg guddi gi nga ciy dallu bëccëg bi ngay kër këri ngir jot sa wërsëg mu lay dundal di la jox defal la wérgu yaram defal la jàmm yooyee yëpp yàlla lum la laaj lan la la yàlla laaj taxawal ma juróomi yoon par bés nga jaamu ma fajar tisbaar tak santimis gee mbokk jullit ñi da ngay gis ku nekk ci yittey boppam di sàggane li nga xam ne mooy waxtu yooyu suñu borom mu ne doomu aadama dañ koo bind ci goree bi mu ne ida massahu charru jazuan su ko nattu tegee su nattu daloo ci kawam mu bëril ak jàmbat takk ay rajo woote ay conférence de presse fépp fu mu mën a yëkkati aw làmmiñam ngir wone tiis gi nga xam ne mu ngi ci ngir wane natt gi nga xam ne mu ngi ci maanaam da koy def da ciy ne ida massahu charru jazuan wa ida massahul xayru manuan su ko yàlla dimbalee ba teggil ko tiis yooyee defal ko ay teraanga bu fëgg dënnam sama liggéeyu nday man maa am xam-xam damaa jàng man nangam nangam ni ma mel dal di yëkkati ay ay ay ay loxoom di bajantu fëgg li nga xam ne mooy dëndam jàpp ne moo ëpp mérite ñëpp ci xéewal yi la yàlla defal mbokk jullit ñi képp ku yàlla teg ay nat na nga xam ne sunu borom tegoon na la ko ñu la gën fop ñu daal di ànd ak dal daal di koy mu yonent yàlla Ayub quatre-vingt-dix ans la tudd feebar yonente la quatre-vingt-dix ans la ko yàlla teg natt mu tawat masul yëkkati làmmiñam di jàmbat fu ne mu dugg fa di wax wala di yuuxu wala yu mel da ko doyloo yàlla muñ ko ànd ak ngoram jaar fi mu war a jaar ba yàlla teggil ko natt yooyee waaye bépp xéewal bu yàlla defal boo ko delloowee ci xam-xam ku la ëpp xam-xam moo ngi fi yàlla defalu ko xéewal yooyee benn mag mu baax doon naa dégg mu ne teraanga yi nekk sa loxo yi bu fekkoonte ne yàlla nekkul moo koy seddale kon yow doo jël koo xam ne sa moroomu waajur wu góor la nga yan ko ab saako fas yéene ko faj li nga xam ne mooy mooy trois cent léeg-léeg gis xale bu ndaw di liggéeyloo magum jëmm mag moo xamante ne nii ba muy liggéey amaana yow juddoogoo yàlla man la fee defal ay teraanga nga man fee judd di ko liggéeyloo di ko fay mbokk jullit ñi bu fekkoon ne teel a xëy képp mooy joxe ay wërsëg kon am na ñoo xam ne tekki nañ bu yàgg ndax am na ñoo xam ne balaa fajar la ñuy xëy bu doon am njàng mu rëy képp mooy tax am kon ñi ne ci université di jàngale ñooy ëpp ñëpp alal waaye am-am borom bi moo koy xëcc di ko jëmee ci ko soob yow nekkal ci li nga war a nekk rek loolu la yonent bi waxoon ihras ala ma yanfauka wala taajaz wastain billah na nga góorgóorlu ci lépp lu la amal njëriñu àdduna waaye bul nekk yambar te na nga dimbali koo yàlla ci say teraangay bopp mbokk julit ñi suñu borom neena goré di nga xamné mom la doomu adama nekké di sant xéewal yàlla yi di ci sant ay ñeneen ay xéet doomu adama ak yu ñu mel lolé lépp am nañu ci mucc moy illal musallin julli kat yi melu ñu meluñu julli kat yi melu ñu noonu ñi nga xamné dañuy suñotal yàlla juroom yoon par bés melu ñu noonu ñi nga xamné dañoo respecter les cinq prières melu ñu noonu ñi nga xamné fajar tisbar takusaan timis gee sa yu waxtu bi jote adduna ak li ci biir amul valeur empêché leen ba du julli doomu aadama amewu ko garaat doomu aadama amewu ko maqaama teraanga adduna jaralu leen ko amul lu mën a taxaw seen kanam ba empêché leen fajar tisbaar takkusaan timis gee ay nelaw neexewu ko naaj bi tàngewu ko mënuñu ko occupé it nag seeni occupation amewu ko kattan lépp lu mën a xew bu fajar tisbaar takkusaan jotee wala timis gee ñu daal di koy bàyyi dem joxe li nga xam ne mooy waxtu yàlla te wallahi lépp loo xamante ne nii yaa ngi ci fii ci àdduna di kër kër yi lu dul julli bu yomal qiyaamee nga rëccu la nga ko doon defee bés bi ngay faatu bés bi la malakul mooti di jël si nga faatu ñu takkale ba mu dëgër war laa jébbal yàlla buñ la dugalee ci bàmmeel yonent bi nee na du mat sax ay ay cinq minutes une minute nga def ko ci biir bàmmeel nga rëccu lépp loo doon def ci àdduna ba mu des julli toog bi nga toogoon di xéewlu sax da nga koy rëcc parce que da ngaa jàppoon ne loolu perte de temps la jamono bi ma toogoon di xéewlu mënoon naa jóg dem julli ji ñaar rakk benn borom xam-xam nee na ahabul ashyaai lil amwaati raddun ila dunya ma al xayaati suwayatan li yaamalu saalihatan tanfaahum in fuqidu nee na li boo demee ci armeel yi di leen laaj ñu tëdd ci bàmmeel yi di leen fëgg di leen laaj ana lan ngeen gën a bëgg jamono jii ñu lay tontu mooy yàlla bu nu mayoon deux heures de ñu jóg suñu bàmmeel yi dem adduna def ay ñeenti ràkk dellu si wat ci biir bàmmeel yi ku faatu ay jamono ay ati at bàyyi woon fi ay projet bàyyi woon fi njabootam bàyyi woon fi soxnaam bàyyi fi liggéeyam bàyyi fi entreprise bàyyi fi lépp faatu ay ati at ñu ne ko buñ la yeewee ci bàmmeel ana loo bëgg a def ndax da ngaa bëgg dem xool soxna si ziyaara njaboot gi eggali projet yi danaan déedéet li ma budd mooy dem def ñaari rakk képp daw dellu si waat ci biir bàmmeel bi mbokk julit ni yow nag yaa ngi dund xoolal bu baax li ngay def profito li nga xamante ni sa dund suñu borom nee ñi nga xamante ni ay jullikat lañ ñooñee ñoom mel nañu noonu alladina hum ala salatihim daimun ñoom seen julli yi dañ ciy sax duñ julli tey bàyyi suba julli fajar bàyyi tisbaar joo boole tisbaar ak takusaan boole timis ak gee déedéet ñoom def noonu walladina fi amwalihim xaqum maalum wërsëg bi yàlla jox dañ ci li nga xam ne mooy joxe li saaili wal mahrum kii laaj ak ki dul laaj bu ñu yégee ne aajo woo nga ñuy jënd seen poos daal di daal di joxe walladina yusaddiquuna bi yawmi diin yawmal qiyaam dañoo gëm ne day am te kenn ci ñun te amul kenn koo xam ne lu dul nga taxaw ci kanamu borom bi loolu la yonente bi wax yonente bi alayhi salaatu salaam nee na kenn ku nekk ci yéen di nga janoog sa borom tabaraka wa taala mu lay laaj ngay tontu walay sa baynaka wa baynahu tarjumaan yonente bi nee na sallallahu alayhi ëllëg yowmal qiyam yàlla dina taxawal doomu aadama di ko laaj di ko laaj di ko laaj di ko laaj di ko laaj ba doomu aadama bi yenu ay loxom daal di yuuxu daal dina yàlla xanaa man rek nga bind ana ñeneen ñi parce que borom bi du bàyyi benn détail lépp loo xam ne yaa ngi koy sàggane ci àdduna jàpp ne yàlla du la ko laaj ëllëg yowmal qiyam sunu borom nee na doomu aadama day taxaw naan maa li haazal kitaab laa yugaadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu maa amilu xaadiran wala yazlimu rabbuka ahadan heure yi nga nekk di ko noyyi li ngay xéwloo ngelaw li ngay noyyi yëre yi ngay sol dàll yi ngay sol lépp loo mos moom di ko contrôler ñu la koy askanale terrain la suuf la kër la xar bëy fas saret oto téléphone portable yëre yi ngay sol dàll yi lépp loo mos a possédé moom ko yàlla dana la ci laaj foo ko jëlee ak banque amee ba noppi noo ko doon jëflante MMS Pro mbokk jullit ñi suñu borom nee na walladina min azabi rabbihim ne nii dañuy bàyyi xel bu baax mbugalum yàlla inna azaba rabbihim xayru mamun mbugalum yàlla day ñoom dara luñ ci seen xel jàpp nañ ne buñ jaaroon fi ñu war a jaar mbugal mën naa wàcc seen kaw walladina hum li furujihim xaafidun ñi nga xam ne dañuy takk seen tubéy ba mu dëgër këcc duñ njaaloo duñ njaaloo waaye it duñ jëflante ak jabaru jàmm mbokk jullit ñi problème bi aussi am na ci société bi lu dul ni si yàlla musal jëflante ak jigéenu jàmbur moo xam jigéen ju amul borom kër la wala jigéen joo xam ne am na borom kër mu ngi ci loxoy jàmbur bokk na ci xeeti bàkkaar yi gën a rëy yàlla subhaanahu wa taala ne ci nekk ba faatu te tuuboo ko maanaam da dugg fi nga xam ne mooy sawara ñu di lay mbugal mbugal mu doyee di suratul furqaan mbokk jullit ñi bi nee na njaaloo day gàttal aw fan ki nga xamante ne ni moom mooy kat bi su waroon a dund li nga xamante ne moom mooy 30 ans yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na vingt ans wala dix ans lay dund mbokk jullit ñi njaaloo day damm wërsëg day gàttal wërsëg day li nga xamante ne nii moom mooy bunti wërsëg mbokk jullit ñi yonent bi nee na njaalookat balaa muy faatu yàlla toroxal ko njaalookat su ko bàyyiwul moo xam góor jigéen balaa muy faatu suñu borom becc ci kawam ak toroxtaange yal na nu ci yàlla musal njaalookat bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na jamono ba ngay njaaloo nekkatu ab jullit jamono bi nga tiimee jigéenu jàmbur te takkoo ko ci farata ak sunna lewu la nga tiim ko di fas yéene bànneexu ci moom rasulillahi alayhi salatu salaam nee na boo tekkee sa tubéy maa nga tekk sa sër yonent bi nee lay gëm yàlla ci yow day roccee taxaw nele daa dine man du ma seede du ma fekke loolu kon yonent bi seede ne na jamono bi ngay tiim jigéen ju la lewut ngay yaaloo ak moom yonent bi ne la sa gëm yàlla rocceeku na tegu nele te wallahi yonent bi waxaatul ne gëm yàlla gi dellu si na yonent bi waxul ne gëm yàlla gi dellu si na teg mooy njaalookat ab julit la wala dub julit suñu borom rek moom mooy ki xam waaye yonent bi nee na jamono ba muy def jëf ji gëm yàlla gi génn na kon yàlla tagg na ñi nga xam ne dañuy takk seen tubay ba mu dëgër illa ala azwajihim lu dul ci seeni soxna aw ma malakat aymanuhum fa innahum xayru malumin fa man ibtaha wara azalika fa ulaika humul aadun ñi nga xamante ne ni ñoo fi bàyyi seeni soxna yi dem di bànneeku ci ay jigéeni jàmbur wala ñu dem di banexu ci góor ni ñom wala ñu dem di banexu ci jigéen ñi ñom suñu borom neena ñoñe ñoy bëtt li nga xamne moy frontière yàlla subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa taala mu dal di waxat ne walladina hum bi shahadatihim qaimun ñi nga xamne gorok ñi nga xamne dañu amuk ngor ñi nga xamne goray di wuñ seen diggante ak seen borom moy ñi nga xamne bu wax dëgg jotté dañuy taxaw dal di wax dëgg seen diggante ak seen borom walladina hum ala salatihim yuhafidun ak ñi nga xamantene ni maanaam seen julli yi dañ koy fonk dañ koy respecté ulaayika fi jannatin mukramun ñii ma tudd yëpp sunu borom nee na bu ñu faatoo ma dugal leen aljana ñu amuk teraanga nekk fa di dallu ñi nga xam ne ñoo yor valeur yi ñoo yor jikko yi ñoo yor comportement yi borom nee na faatu rek moo tee ma dugal leen aljana yàlla nu ci yàlla boole aqulu ma tasmauna wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu kaana bil muminina rahima الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بوكو جلتني آي ينجان لأجي بوكو ستان تلي دانتي جيس جروم نياري ديكو يو خامنة مملو سنو بروم دنجو موارا نك كن كن نك تنين دان كوي تنك لنجو دسيتي تحواي جروم نياري بيتي جيت موي مون دغر تي اي برنسيب مون تنياك نيول اك جامبات بن بروم خام خام نيت كو نيت يالله bind na ci téere mu ne la dan laa tuksiri shakwa fakun mutajallidan xataa yazunna naasu annaka mun'amun bul bëri ak jàmbat jullit du bëri jàmbat jullit day nekk ci ay jafeñ-jafeñ nekk ci ay problème waaye doyloo gi muy doyloo yàlla wóolu gi muy wóolu yàlla day xam ne ay aajoom yàlla képp moo koy faj effectivement ba àdduna tukki jafe-jafe yi suñu borom képp moo koy faj léeg-léeg diis gi ngay diis nit ñi say problème defoo lu dul weer sa bopp defoo lu dul wax sa bopp defoo lu dul sa bopp waaye wallahi amul benn soxla boo xamante ne nii attan dugg sa néeg jàpp ba sell julli ñaari rakk di soxla si suñu borom loolu soxla attanu ko li gën a mën a faj aajoy jàmm ñi mooy nga delloo say soxla ci borom bi tabaraka wa taala kon jullit du bëri jàmbat beneen taxawaay bi mooy taxawaayu julli yàlla da koo ubbee aay yi daal di koy tëjee aay yi loolu di la woon importance julli fi toll ci diine mbokk jullit nii doomu aadama defalul yàlla lu gën a am solo julli doomu aadama defalul yàlla tabax ay gas ay teen dimbali ay nit jënd ay ravitaillement jox ay nit loo mënti def li ëpp doole mooy julli moo tax ku julli amul cër ci diine ak ko mënti doon ak noo mën a askanoo ak foo mënti dëkk ak noo mën a wuyoo ak ku la mën a permettre loolee ak noo ko mën a organiser amul cër ci diine ku dul julli alquran yàlla waxu ci sujet ku dul julli amul ci alquran cent quatorze sorat yàlla traité wu ci traité wu ci sujet ku julli yàlla benn yoon la wax te ki nga xam day sàgg julli ba ci la wax alladina an salaatihim alladina hum an salaatihim saahuun ñi nga xamante ne nii respecté wuñ julli gi dañuy boole waxtu yi julli fajar gi dañuy bàyyi ba naaj bi tàng ñu doog koo def moo tax boo demee ci téere ibnu abi dunya moo ngi fay nettali juróom luy tolloog fukki mbugal ak ñeent quatorze mbugal ak ñeent quatorze mbugal yoo xam yàlla da koo jagleel jullit bi nga xam ne day waxtu julli quatorze mbugal yooyee juróomi mbugal yi fii ci adduna lañ la koy mbugal yeneen ñetti mbugal yi booy sukuraat yeneen ñetti mbugal booy boo faatoo ba dugg ci bàmmeel yeneen ñetti mbugal yëpp boo dekkee ba taxaw ci kanamu yàlla juróomi mbugal yooyee yàlla di ko mbugal ki nga xam ne respecté wul les cinq prières bi ci jiitu mooy suñu borom yonent bi nee na yàlla day rocc ci barke ci sa dund lu ñuy tuddee barke yàlla da koy rocc ci sa dund koo xam ne suñu borom daa rocc ci barke ci dundam kooku du ci ay jafeñ-jafeñ kooku du tàmbali lu egg du yaakaar lu du fëgg bunt mu ubbeeku ay mbiram léppay taxaw léppay dëgër ndax kenn xamul yéefar la xamul jullit la léeg-léeg mu julli léeg-léeg mu bañ a julli waxtu yi day bàyyi mam jàll mu doog a julli mbaa muy fayaka boole waxtu yeeg yu ni mel ci ay soxlay lay ne kooku yàlla du def barke ci dundam ñaareel ba mooy suñu borom du la nangul ay ñaan ñetteel ba yàlla du say ñaan yàlla du ko nangu ñetteel mooy ku la ñaanal borom bi du ko nangu ñeenteel ba mooy doo def ci diine lu yàlla nangu ku dul def ci diine yàlla nangu del de màkka del woor del saraxe del joxe asaka jaamu yàlla goo mën a def fekkee ne fonkoo waxtu juróom borom bi tabaraka wa taala du la nangul benn jaamu yàlla juróomeel ba mooy boo demee ba nekk mag suñu borom tabaraka wa taala orma gi nga xam ne moom la mag di am gis na karaw yu weex yi yàlla da cee dëxëñ ay orma léegi gis mag moo xamante ne ni ànd ak sikkim bu weex ba ànd ak karaw gi weex ga waaye benn ma amu ko benn xorma bu nekkee ci bërëb dañ koy kekkantal di ko fowee di ko doyee di loo lu ko waral mooy boo ko seetee ba seet ko nekkul mag mu fonk julli nekkul mag moo xam ne day puusante ci sàpp yi di dugg ci biir jàkka yi di jaamu yàlla kon julli mooy li gën a am solo ci diine moo tax rasulillahi nee na boo faatoo dem ci yàlla suñu borom say julli lay njëkk xool bu xoolee julli gi mu baax yàlla jéggal na la leneen la ca mënti topp ak lu mën a doon ci ay bàkkaar waaye boo faatoo dajek yàlla yàlla xool julli gis ne dara baaxu ca loo mënti def ci lu baax ci ginnaaw yonent bi ne yàlla da ko xool dalay fop daal di dugal sawara yàlla ci yàlla musal mbokk jullit ñi li nga xam ne mooy infaq mooy joxe aussi tamit yàlla da ko boole si jikko yi nga xam bépp jullit bëgg a texe yowmal qiyaam da ko war am beneen ba mooy bàyyi xel àllaaxira tey góorgóorlu di liggéey ndax àllaaxira bàyyi xel àllaaxira bàyyi xel ne di nga faatu dajeeg yàlla bàyyi ko xel tey góorgóorlu di kërti kërti di def te bàyyi xel bés boobu ñun ñii ñëpp ak keneen ku dul yéen kenn ku nekk am nga entreprise am nga fooy xëy am nga ay kër kër yoo xamante ne nii adduna képp nga ci yaakaar adduna képp nga ciy wut da ngay xëy huit ba dix sept di kër kër yi te kër kër yi googee maanaam adduna képp ay teraangay adduna képp la ko jaral te danga koy respecté teg ko ci heure nag heure bi ñu la sant nga xëy si doo ko wàcc wala même boo ko tardé da ngay bind demande explication daal di koy joxe ci saa si dégg nga te loolee du dara lu dul yittey adduna ngir amuk dal ak teraangay adduna gi nga xam ne léegi mu jeex waaye li nga xamante ne nii mooy ñi am xel dëgg mooy ñiy bàyyi xel seen diggante ak seen borom yonent bi nee na al qayisu man daana nafsahu wa amila lima baada al mawt wal aajisu man atbaa nafsul hawa wa yatamanna ala allah yonent bi nee na ki muus dëgg mooy ki not bakkanam ba jaarale ko fi yàlla bëgg ci moom jaarale ko fi yàlla bëgg ngir am te daa ngay alaxira kookoy ki muus waaye ki ñàkk xel dëgg mooy ki tëdd di nelaw sàggane boppam sàggane alaxira ba noppi nag kenn ëpp ko xel mu dal fa yàlla fa yàlla subhaanahu wa taala beneen bi nga xam ne moo ci topp mbokk jullit ñi mooy wattandiku njaaloo taxaw naa ci taxawaay ci xutba bu njëkk bi wattandiku njaaloo takk sa tubéy ba mu dëgër bu fekkee toll nga ci denc nga dem denc soxna bu benn bi doyal nga wut ñaar soo bëggee wutal ñett boo wutal ñeent falakul islam yemale te jigéenu jàmb yi nga bàyyi leen rasulillahi alayhi salaatu wasalaam ni mu misaale ki nga xam ne day am soxna ba noppi ki nga xam ne day am soxna ba noppi dem bi taxawaalo ci àll bi ci ay jigéenu jàmbur yonent bi nee na kooku mooy ki nga xam ne yàlla da koy wërsëgal ndawal lu baax lu sell lu yiw mu denc ko ci ay firigoom génn di topp médd mbaam xuux yi ci àll bi di lekk yàlla nañ ci yàlla musal mbokku jullit ñi nit ki noonu sàmm sa kaddu yàlla boole na ko ci li nga xam ne mooy jikko yooyee sàmm sa kaddu dëggu li nga xam ne mooy say engagement confiance bi nga xam ne moom la nit ñi di am ci yow ba dénk la loole bu ko trahir bu ko wor te saa yoo yëkkatee sa kaddu ne dinaa def nangam nga góorgóorlu ci respect li nga xam ne mooy sa kaddu googee mbokk jullit yàlla bi mu noppee ci loolu yëpp dakaa li nga xamante ne ni moom mooy julli ñu delluwaat di wax ne importance julli ci diine kenn xamunum toll te damay faral di wax ne te du ma continuer di ko wax mooy doomu aadama fa muy rëccoo yàggut soriwul te yomal xiyaam ni ko yàlla binde ñëpp ay rëccu kenn ku nekk boo faatoo dajeeg yàlla di nga rëccu lan nga doon ñëwee ci àdduna yomal xiyaam lu sérieux la mbokk yu li ñi lu nuy xaar lu sérieux la lu sérieux moñu ñu xaar te yàggut fii nga tok rek man na doon suba man mi di wax man na baña jité jité julli gi suba man na faatu kan ci ñun mo xam kan lay dund kan ci ñun moko ko 2024 2025 dana ko fi fek kan te bo topé réseaux sociaux yi top internet bi di déglu politiciens yi yow da ngay jàpp ne deewagoo da ngay japp ne manam di fi dess gaañi ay programme yi 2035 lañuy tek ay waxuma ne baaxut waye dama la xamal ne tegal programme bu la neex organiser sa dund nu mu la nexé mais bayil xel ne li lepp man na multiplier par zéro ci yow suba rek man nga dem legui man nga dem te wallahi lepp lo xamne ne yaa ci bu dee nga bàyyi lepp loy def bu agge rek dee mo la fi bàyyi yow añ di ngay waji a ni boko boo ba pare rek dee mo dikku bu dee da ngay waaj tak soxna bo agge ba labat bay tak rek dee mo ñewul bu dee da ngay waaj tabax keur ba jënd terrain di fondement bu agge rek dee mo ñewut fi may jeexale mooy bu yàggul dara suñu koñ bi rek barki dembu benn waay su baax soo xam ne xam nañ ko ci mbaax ci yéwénam mais malheureusement diine moom itteelu yi itteelu ko mu jógee France ak alal ju bari ñëw jënd terrain suñu wetu jumaa ji nekk fële ci quartier bi tàmbalee tabax terrain bi ñun fekk nañ dañuy dañ koy romb nii mu toog dafa jógee France jël conseil toog fas yéene tabax kër gi ci trois mois xam nga ne ku jënd terrain bu fidd fas yéene tabax R plus trois ci trois mois kooku borom kattan borom doole la waa ji bu këram la seizième lay teg buntu fi fi gars di liggéeyee man dama koy romb tisbaar dem ci jàkk ji julli ji ma romb ko fa mu toog mu naan maçon yi jubbanti leen lii wekki leen pont bi karo yi di ngeen ko defee baaxut ay xëccal suuf si xëccal ndox mi wàcceel lii nii maanaam ci loolu lay xëy ci loolu lay góon ba ngoon jot dama koy romb tisbaar romb ko tàkkusaan romb ko timis dem julli moom ci loolu lay ne mu liggéey kër gi bañ karo ba pare mu taxaw di niir ba mu yàgg mu ne karo yi neexu ko nan dindi karo yi def yeneen ñu dajjiwaat toj karo yépp defaat yeneeni karo wallahi lazi la ilaha illa huwa ba kër gi pare mu wo njaboot gi njaboot gi joge France ba njaboot gi dugg ci kër gi yooyu yooyu mom mu am fu mu demoon am lu muy lijeenti da no wo njaboot gi ñu leen faatu ba tay jii may wax ak yeen mom dekk ci kër gi dekk ci ba tay jii may wax ak yeen dekk ci te lolu du fi jeex du fi xaj suñu ben xarit def na concours ba jall université en tant que professeur bañ war ko jël mu signé def yëpp ba nga xamné école ubbi rek mu dem université di jàngalee ci dess mu jënd auto bu dul xonk 4-4 dal di jënd ngir ay jangalé université 4-4 bobé xaritam moko war gunge ko waram ñu suuli ko Louga loolu dafa bëri ci société bi dafa bëri moo tax nekkal ci lu la neex waaye bàyyil xel sa diggante ak sa morom say mbir mën naa jeex léegi yàlla nu yàlla suturaal yàlla bu nu yàlla fàttaloo alaxira yàlla nu yàlla saxal ci li ko sopp moom yàlla rabbana atina fi dunia xasana wa fi alaxirati xasanatan wa qina adaba naar rabbana la tuzig qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahhab اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله